deni jam yo den jam ko nya geme jam ko deni jam yo den jam ko nya geme chàng cô ơi lên Thank you. neexut ba neexul waaye seen marché bi bis bu jëyi amoon pour nga dugg fi sauver problème lay doon ndax ni nga xam ne noonu la télé bi sakke soo duggee ci biir marché bi aussi noonu la noonu la takke noonu la sakke ndax da ngay gis ko amoon 2 mètres fa baat yeneen fekk mbedd mu nekk 5 mètres nga jëlaat yeneen 2 mètres sa morom jël 2 mu des 1 mètre ci kooku ñaani ñu ko yàlla waaye bu lakk amoon yàlla bu mu am nag bu amon ab raccord dong par nga pour nga jaarale ko fa daw di lakk fay lak ga dana jafé dana jafé hmm. ndax mo taxone mal bi lak ba jeex tak ay jamono mal bi 2011 dafa lak ba jeex tak ndax amuñu fuñu jaar hmm. te bous des yi ci biti la nek waaye amul ci bir marché te bous des amul puissance am amul pression ndax ndox mi fi dafa néew doone wala ndox mi dafa néew doone lolay suñu problème waaye nak yalla mi ngi ni sutural ndax xeyna oh. ya hmm. du ñak mu di fi am way geñ ñu gis ci togg fi bir marché bi timit lima lay xamal ne la kenn du ki da da ngay gis ko xamanteni ni aduna am lepp togg ak yak lay def bu ko defé ci bir marché ay restaurant amna fi kay gis nga ñu ne len léegi da len toggee ci seeni kër dik di jaay ci marché bi ñu bëgg lank lànk loolu bopp ay gaz diko ko ci bir marché waaw léegi protection civile yow bu bu lakk amee ñu ne eh, eh, kilifa yi dañoo sàggan dañoo war a def nangam ak nangam hmm. ñu ne leen lii nga xam ne mën naa indi gaaf dindi leen gaas yi bu leen ko indee ci marché bi ndax marché bi xat na bu bu bu bu kalaatee rek mën naa indi problème. ak xal tamit waaw ñooñu tam dañuy def say dik di la bëgg yaakaar lii rek lañ yaakaar lii nangam na waaye ñun dañ leen wax dem leen seen kër lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen xadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am talibi gaaw efficace contactel xadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc